Euh, cantak ngërëm euh, jàmm ak salaam ju sax dàq ñi ngi leen koy ñaanal yéen ñi nga xam ne rek yéen a ngi ñuy topp euh, saa su nekk di ñu suivre sur ma chaîne YouTube Partout TV ak képp koo xam ne rek yaa ngi topp ci bitim réew bari na nag ñoo xam ne rek bëggoon nañu dégg ñu génn wax rek ci li nga xam ne moom mooy circuler ci réseaux sociaux yi ak li nga xam ne moom mooy positionnement leader yi ku ci nekk ak sa position nan ngay def ci liste nationale yi te mën nañu jàpp que ne loolu kat nekk loo xam ne ñu baree bari jamono bi ñu toll nii war na war nañoo mën a am loo xam ne rek lu leer nàññ la ci li nga xam ne rek moom moo di euh, dossier yooyu loolu nag lañ fas yéenee daal di dem fi mu toll nii nag dafa am loo xam ne rek moom moo gën a nekk piir ci jamono bi ñu toll nii ci naka la ñuy def ci li nga xam ne rek moom moo di list yi mooy bari na ñoo xam ne comme liñ koy faral di expliquer rek bu ay élection jege dañu faral di bëgg ñu dikkaat pour mën a expliquer naka la ñuy def si procédure électorale bi naka lay demee te tamit di suivre li nga xam moom moo di étape yi ndax bu ñu fàtte ne étape biñ nekk yi mooy étape bu saytu list yi waaw fii ba altine muy lundi dinañu daal di caytu naka la ñuy def pour mën a xam ñan ak ñan ñoo war a mën a dem ci élection yi ñi nga xam nag seen liste dafa incomplète maanaam matul commission bi mën na ko rejeter tey wala suba fii altine lu lépp mën na cee am mën naa nekk léegi nag ci lënd bi nag lañ war a afficher que ne ñii liñ leen laaj ci li nga xam moom lañ jot a laaj ñi ñoo indilu lu complet donc ñii kon ñooy dem ci biir loolu nag list bu ci nekk am nga sa mandataire yow bu la neexee mën nga ne déedéet man ànduma ci list bële pour mu dem loolu la ñu wax recours am nga 48 heures pour rek nga mën a def li nga xam moom moo di sa recours pour ne man am na liste boo xam ne d'accord mu ne war na mën a jàll ndax li ak lii ak lii déposé ko ci conseil constitutionnel ñoom nag ñoo yor dernier mot bi maanaam kàddu gu mujj gi ñoom ñooy xool ba xam est ce li nga wax ànd nañ ci waaw wala déet bu fekkente ne d'accord nañ ci ñu bàyyi mu jàll bu fekkente ne d'accorduñ ci tamit ñu rejeté waat ko kon nag dernier ñoom ñoo ko yor ci ñi nga xam ne ñoom lañ war a afficher lundi exemple ñu ne six liste lañ war a jàllale wala huit liste lañ war a jàllale mooy yool moom lañ afficher ci lundi bi ñu def recours dem conseil constitutionnel conseil constitutionnel ne man huit liste yi ñu afficher woon amul lenn luñ leen di toppee kon huit yooyu yëpp day dem c'est définitive kon amatul beneen mbir boo xam ne nit da si ne dara ñooñ ñooy dem mais ñoom tamit mën nañoo def recours ñu dem ba foofu ñu ne waaw li ñu def ci liste bi dëgg la huit yi mën nañoo dem mais nag huit yëpp yëpp duñ mën a dem ndaxte mën nañ cee rejeté waat beneen tamit ci huit yooyu ne sept mooy dem wala six waaw ci biir loolu nag comme niñ ko waxee woon rek ndax dafa am lu ñu tuddee intercoalition intercoalition ku ko bëgg comprendre euh, ñu waxaat ko par exemple coalition yi nga xam ne ñoom ñoo dajaloo dafa am élection législative lu ñu wax liste départementales yi comme ñoom d'accord nañ ci cinquante quatre départements yëpp dañ ci fa yéene ànd kon loolu li muy tekk mooy quarante six départements yi nga xam ne moom moo nekk Sénégal ak huit yi nga xam ne moom moo nekk ci jaspora bi ñoom ñooy bokk nekk intre intercoalition bi boo ko defee ñu bokk liggéey léegi nag liggéey bi nan lay demee dañuy tànn département bu nekk exemple ñu ne région bu Dakar ñu ne dix huit député moo fay jóge exemple ñu ne Dakar sept député moo fay génnee waaw département boobu bu Dakar comme sept député moo fa nekk dañu xool ñaata coalition ñoo fa def intercoalition bu dee ñaari coalition ñoo fa def intercoalition bu si nekk dangay indi say euh, say say say membre ñu bind ko ci list département bi après list boobu nag ñaari euh, coalition yi dañu wax ne voté leen list bi amul kenn kuy wax moroomam ne ku nekk na woteel sama liste coalition dañuy bàyyi beneen coalition bi listam bulletin bi nag dina nekk ci mbañ gàcce bi dina fa nekk ci jour vote bi mais doo ko jël bi ñu leen joxoñ bi nga xam ne ñaari coalition yi ñu ñoo lëkkaloo bind joxe seen nit foofu investir foofu ci liste département bi ñooñu la ñuy voteel foofu bu ko defee ñaari coalition yi ne coalition bu si raw gàddu bu si nekk da nga si gis sa bopp muy ñaari coalition yi defoon intercoalition bu dee ñetti coalition tamit ku ci nekk da ngay indi say nit ñu bind leen rëdd leen ci euh, list département boobu su ko defee liste boobu nag ñetti coalition yëpp la ñu joxañ nit ñi ne leen ah ñun kat dañoo intercoalition ci list bii nii maanaam liste bi moom lañ bëgg nit ñi voteel ko ñetti coalition ku si nekk da ngay bàyyi sa coalition bi nga xam ne moom lañ joxañul biñ joxañ nag boobu ngay dem nga vote si moo xam ci la sa leader nekk euh, ci la juddu waaw comme sàmm sa kàddu ak jàmm ak njariñ takku ak yeneen ak yeneen wàllu euh, extra wala Sénégal kese yooyu yëpp yëpp ay coalition la yoo xam ne ñu ngi ci opposition bi donc su suñu lëkkaloowee rek il faut que ñu comprendre que ne yow sa nit bi nekkoon ci sa coalition te joxuñu sa liste te dugal nañ ko ci liste yi nga xam ne moo war a nekk ci département bi dugal nañ ko ci liste bi nga xam moom lañ joxoñ pour nga voter ko ñun ñëpp buñ sotee rek ku ci nekk da nga am sa député da nga am sa député bu nekk ci liste boobu kon ku ci raw gàddu rek yaay jël député yi nga xam ne moom moo fa moo fa nekk rek donc niñ ko déficit bu fekkente ne ñett coalition la wala ñeent wala ñaari coalition selon ku nekk ñaata député nga joxe ñu def ko ci liste département yi noonu la mbir yi di doxe noonu nag lay demee ci département yëpp moo xam jaspora bi waaw yëpp daal noonu la fay noonu la fay demee léegi nag buñ paree si loolu am nañ tuddee caution bi waaw bi quoi mooy ñi nga xam ne tey euh, suffrage euh, valablement exprimé euh, bokkut ak bulletin nul yeeg yooyu quoi loolu bokk si nga xam ne tey dañoo jël ñaari bulletin def ko si muy niil wala genre yooyu quoi valablement exprimé mooy voix yu baax yi nga xam ne tey moom lañ war a xool exemple ñu xool diaspora bi ak intérieur cinquante quatre département yëpp la ñuy dajale ñu xool voix yëpp nombre de voix yi ñëpp waaw sans exception yëpp la dajale ñu xool ñi jot a exemple ñu ne un million :fra la wala deux :fra la wala luñ mën a calcul daal ak luñ mën a doon ci nombre de :fra yi moom la ñuy jël ñu diviser ko par cinquante exemple buñ ko diviser par :fra cinquante exemple ñu ne un :fra million lañ am exemple un million deux fois yooyu dañ koy jël ñu diviser ko diviser ko par cinquante mu nekk vingt mille kon dañuy wax ni képp ku nga xam ne tey am nga vingt mille ci département bi am nga benn député ci liste nationale yi euh, bu fekkente ne nag am nga quarante mille am nga beneen deuxième député kon donc donc noonu lañ koy toppee di ko toppee ba nga am ay député yu bari bu far cinquante mille yi nga amoon nag am nga dix yu la dese exemple léegi bu ñu calculer ñëpp nag ku ci nekk coalition bu ci nekk liste bu si nekk ñaata nga am ci vingt mille yi wala kii am na trente mille kii am quarante mille kii am cent deux cent extra kii am six cent donc noonu la ñuy rawante ay député ci list nationale yi ba tey waaw léegi nag ki nga xam ne moom am na loo xam ne tey dafa tool maanaam loo xam ne tey matul lu tool li la xool nag li nga xam ne moom loolu la ñu tuddee plus fort reste mooy ñi nga xam ne exemple tey dañoo jot a am ay vingt mille ay cent mille et tout ñooñu jox nañ leen seen député ba pare ñi nga xam nag dañoo toll mooy ñi nga xam ne dañoo des ay dix ay quinze extra genre yu mel noonu ñoom la ñu xool ne ah kii kat lii moo ko dese kon plus fort yooyu ci ngay gisee mu daal di am loo xam ne rek moom mooy dix huit mille wala mu am vingt mille wala mu am leneen comme kon ka tey cinquante mille lañ lañ laa joon exemple noonu lay demee waaw kon kooku moom mooy ki jiitu ci trois yi des ñu ne ah di moom moo jiitu kii moo si topp kii moo si topp ne kii kat jàll na plus fort kon donc loolu dinañ ko gën a leeral sax buñ demee ba gis que ne euh, liste yi ñëw na parce que tamit bari na si loo xam ne doo bëgg di ko anticiper gun ndaxte tamit am na leneen loo xam ne bu génnaatee mooy gën a leeral rawatina nag ci lënd bi nga xam moom lañ moom lañ dëgmal ndax stratégie yi nga xam ne tey moom lañ war a teg ci intercoalition bi extra rawatina nag ci diggante ñi nga xam ñooy leaders yi ñu gën a expliquer nit ñi nan lañ koy voté ak bu ñu amee nombre de voix temps nga xam ne dëkk bu nekk di nga xam ñaata votant ñoo fa nekk suñ ko gañee lépp ku ci nekk sa numéro leader fu mu positionné dinañ la mën a xamal ne kon lii nga mën a am ak lii ak lii kon affaire bi noo rek lay demee kon nag bari na ñoo xam tamit ñu ngi euh, laajte ci mbirum yennati actualité yi rawatina nag ki nga xam moo di Bougane Gueye Dany extra mais yooyu yëpp bu fekkente ne yaa ngi topp sur ma YouTube Euh, def nañ ci ay vidéo ndaxte bari na si ñoo xam ne tamit euh, ñi ngi daal ci kawam gannaaw bi ñu ko libéré wante tamit lu si mënti am dañu gëm que ne euh, ci politique lañ nekk kon nag am na ci loo xam ne jaaduwul te tamit am na si loo xam ne ñu baree baree bari duñ ko seetaan en tout cas pour ñu gàttal ko rek mën nañ ni loolu bokkoon na ci li nga xam ne moom moo gënoon a fees ñu dikkoon pour partager ko ak yéen ci processus bi nga xam ne élection législative yi noonu la war a doxee. Euh, di leen di jaajëfal bu baax a baax a baax nag ci topp gi safoo gi ak faale gi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy faral di bàyyi xel saa su nekk sur ma chaîne YouTube Partout TV jaa ngeen jëf